Fallou Samb maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna si. voilà nga nekk secrétaire administratif euh, bu cadre unitaire des syndicats des transport routiers. yéen nag mhm. àndoo leen ci mot d'ordre de grève bi nga xam ne Alassane Ndoye c'est syndicat yi bokk foofu ak tamit syndicat bu Gora bëgg nañ ko amal ci mardi bile lan moo tax àndoo leen ci grève bi. waaw ginnaaw bu ñu nuyee auditeurs yi Rewmi FM yëpp di jaale Sénégalais yëpp tam ci li xew euh, li tax ànduñu si moom wax dëgg yàlla defe naa li xew si kilo ñëpp ko yëgandoo ci réew mi euh, muy muy loo xam ne nii mësta am ci réew mi ñu koy réccu bu baax a baax. Euh, loolu nag bi mu xewee président dafa def li nga xam ne beneen président bu nekkoon place am loolu ngay def ngir bi mu déplacé dem dugg ci hôpital ba fekk ñi seen i tànk damm ñi seen i loxo dagg ñi seen i bopp toj morgue bi fees dell nit ñi di yuuxoo ci biti seen i mbokk. en tant que président njiitu réew mi père de la nation mënul def budul émotion ba mu fa fekk mu jël ay dogol sant ko premier ministre loolee moo waral ab dajaam ca jëm ñaajo te man li ma jaaxal mooy daje boobu ñun ñëpp dañ faa nekkoon bi premier ministre di wax mesures yi ñaar fukki mesures yi ñett ñu ngi ci ñun ànd ci camarade góoru xuma dafa jóg taxaw daal ni contexte bi ñu nekk kenn sañ ta wax waa déedéet ñëpp waaw la ñuy wax appliquer leen mesures yi te bu leen ci am benn discrimination waaw ñooñu man bu ñu lëtikoo génn ni ñoom dañuy gën a def ñu yàqal waaye nun cadre keroog ban fa jógee jàngat nañu ne mesures am na yu baax mais am na yu diis lool ba yegg ci gànn hmm. te loolu attanuñ ko waaye dañoo jël suñu responsabilité woo directeur général des transports bëggoon nga aménager ñu ab rendez-vous dañoo bëgg a jàkkaarloog suñu ministre ngir xam nañ ni émotion rek moo leen yóbbu waaye lii ngeen wax am na ci loo xam ne mënut nekk nga daje ak moom àjjuma waxtaan ak moom cadre bi yëpp toog ñu woo président national Idika mu bàyyi ko Touba président national Aliou Lo ko Dakar ñun ñëpp ñu daje tànn point yi benn par benn bi ñu bi ñu waxtaanee ba jox leen ko xamal leen ni lépp luy porte bagage d' accord nañu ni chargement intérieur ëpp na waaye nañ ko wàññi nañ ko wàññi parce que jaaduwul d' accord tamit ni oto yëpp mënuñoo ñëw Dakar passé visite technique d' accord itam âge oto yi mënut a dix ans d' exploitation d' ci ni pneu il faut xoolaat ba ci xamal ne camions yi bokkuñ ci mesure bi presque mesure yi ñu fa wax yëpp ñu jubóo ci ak ministre bi ba mu des heure bi nga xam dañ koo réglementé pour ñuy daw guddi te heure boobu comme accident yu bëri day am boo boo en tant que syndicat boo négocié ñett fukki point nga am juróom-ñett xanaa war nga mën a maslaa bokk ba ci kanam surtout nga nekk ci contexte boo xam ne réew mépp dañoo sëngéem ñëpp nekk ci dëj nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen mbokk saraxale guñu wax dëgg yàlla dañoo jàpp ne bii jamono du jamono grève moo tax ñun ànduñu ci te ku ñu ku ànd ci suñu cadre unitaire jox nañ leen ndigal nga xëy parce que xamante nañu duñu nangu kenn koo xam ne da nga ni arrêt de travail oto waaye yow fi sa sañ-sañ yem foofu la sama bos tàmbalee kon yow bu bëgg a a liggéey bu la neexee toog waaye man mi bëgg liggéey bàyyi ma ma liggéey waaye du ma liggéey doo liggéey amul fenn parce que lii teg ci contexte bii gis nga fii ngay wax ak man maa ngi nii jëm Louga ñaar fukki nit na sa bakkan ci tali bi mm. kon masawu askan wi moo war transport gisawaat ci seen biir waxtaanaat moo nu war def benn forum jéem a trouver solution yi nga xam ne moo am ci tali bi en tant que acteur loolu moo nu war waaye àgguwuñu fu ñuy def bras de waaye ñu war a jaale seen mbokk nag nga leen dugal leen jaajee te seen i mbokk def si tali bi et tant d'autres bi laaj ko xalaat bi laaju ko entretien bi ko te fi réew tam laaju ko moo tax ànduñu si ñu ngi wax état mu jël ay matukaayam protéger ñu protéger suñu alal ñun dañuy liggéey. mais est-ce que Fallou yéen seen syndicat bi am na doole par rapport ak bu Gora Khouma bi ak bu Alassane Ndoye bi est-ce que sénégalais yi dinañ sentir suba dinañ sentir grève bi mardi bi waaw wala déet. waaw suñu syndicat bi su fekkee ni aptu di huit cent et contre di sillonné Dakar di def quatre cinquante trois de la population daf ci ànd bu fekkee ne regroupement national de chauffeurs Sénégal daf ci ànd bu fekkee président national IDICA ba nekk Touba daf ci ànd bu fekkee ni aussi Seydou daf ci ànd. bu fekkee bi ñoo def ci ànd bu fekkee ni aussi def ci ànd bu fekkee ni Diaobé def ci ànd bu fekkee ni Louga def ci ànd et tant d' autres régions bu nu ma leen énumérer parce que AG bi dem bi ñëpp a ñëw mais suñu syndicat suñu cadre bi juróom-ñeenti syndicat la ñu ñoom ñetti syndicat la ñu te ñoom ci ba cadre bi lañ bokkoon ba ñuy grève deux mille vingt et un ñun ñëpp a àndoon kon ñoom comme dañoo démarqué wu li tax ñuy demander état pour que mu mu assurer sécurité ñun wóor nañu ne ñoom mënuñoo paralyser dëkk bi xam nañ ko mënuñu ko te bu fekkee ni seeni pexe xam nañ ko mooy ker suñu oto ji fayal gi toj ko yàq sa ko boo ko defee yenn transporteurs yi ragal tax bëgg a sàmm seen alal gaare seen oto te loolu day nekk grève forcée te grève forcée duñ ko nangu dañu bëgg comme lañu di arrêté travail yi ku mu neex gaareel sa waaye nañu toog bu ñu xëyee bu ñu génn seen i kër ñoom ñu bëgg a grève nañ toog seen i kër bañ a génn te bàyyi noog suñu gaaru cër ba xam ñoom danañu liggéey te su boobaa nit ñi dañ leen yóbbu dañu gis ni grève du am benn impact ci population bi léegi yokkum paas bi ak euh, carburant bi nag loo si wax Fallou Samb waaw li ma ciy wax mooy. Hmm. yokkum carburant moom inflation mondiale la loolu du Sénégal rek yéen ay taskatu xibaar ngeen xam ngeen ni àdduna bépp yokku paas état bi yokkul paas dafa teggi subvention bi mu doon def ci carburant bi waaye daf ne yéen ak lu transport kaay leen di waxtaan. danaa jël ñaar fukki milliards ak juróom jox ko muy seen ndàmpaay su ko defee ngeen compenser ko seen man à gagner bi ndax ngeen bañ a yokk paas yi muy ñëw ci askan wi parce que kat maa ngi teg subvention bi mais bëgguma askan wi sonn ci mais vraiment je crois que loolu ku la ko wax tam war ngaa mën a xalaat bañ fa dajee jox taan ñi dañ ñi nañ ko jël dugal ko ci benn banque wala dugal ko fonds de développement transport pour renouveler parc Maguette bi direction yi ñenn ñi dañ waxtaan ci caisse de répartition bi kon loolu aussi effort la waaye nga ni daal euh, damay grève damay grève damay grève te état lu mu teg ubbi na la solution pour waxtaane ko je crois que foofu la ñu a toll pour waxtaan waaw euh, Fall wax nga ko sànq sax accident yu bari bi ñu jógee ci deuil national bi yàggul euh, deuil national trois jours ndax euh, quarante deux personnes yi ñàkk seen bakkan ci drame bu Sikilo sànq wax nga ko encore yeneen vingt personnes ñàkk seen bakkan ci accident bi am ci côté Saint-Louis pour yow lan moo ci solution exactement en tant ku nekk ci secteur au transport. voilà cadre unitaire des syndicats. defe naa forum waajal ñëpp dégg wax na ko ci point de presse waxtaan nañ ci ak ministre bi directeur général transport ñëpp yëg na ko forum boobu rek mooy solution bi acteurs yi transport yi jéem a ñoom daje waxtaan demande nag secteur yëpp ak secteur transport daje jéem a nag proposer ay solution état bi te bañ a teexaar état bi di jël ay solution di ko ñun ñun dañu xalaat transport lan mooy jafe-jafe bi ñun acteurs yi xam nañ ko ñoo koy dund ñu jéem a remonter ay information la xalaat boobu jébal ko état ni ko nag ñun lii mooy suñu xalaat su ko defee état bu jëlee loolu woo journaliste yi woo société civile woo askan wi ñu bokk toog ñu woo concessionnaire woo assureur ñu def lu ñuy wax forum wala assise nationale de transport conclusion yooyu ñu ciy tiré bu ñu ko tegee ci table yi ñëpp nangu ko ñu appliqué ko lii dana soppeeku nit ñi dañuy dee ci télé ëpp na te jaaduwul. Euh, léegi euh, comment dirais-je Fallou euh, Samb gis nga ni fi ñu toll nii comme ni nga ko waxee climat social bi nekk na lu duy waar ban appel ngay lancé muy nguur gi muy yéen ak tamit sénégalais si jamono bi nga xam ni ñu ngi koy daal di dund. xanaa di ma taw Sénégalais yëpp rek di leen jaale ñoom ñëpp. Mhm. di jaale président Macky Sall di jaale tam mboolem ñi nga xam ne seen bakkan dafa ci tali bi di wax nag ni olof Ndiaye nee na ñu ñëpp jëppi waruñoo jëppante. Hmm. kon nañu jël def ko potum biir ñu xam ne li xew nii kenn ku ne ci ñun war nga ci am xalaat war nga ci am jàngat jar na soppi jikko. Hmm. jar na tam jël ay matukaay muy xam ci président gaaru cer yi moo xam ñu jiite syndicat yi ñu leen di wax dëgg te leen di ñax ci dëgg te doo ànd ak ñoom ci dëgg il jot na tam pour que ñun ñëpp ñu ànd. bokk ndey ak bàyyi xam ne transport bi bu ñu ko seetaanee fu mu jëm du ñu arrangé ñu jël suñuy matuwaay en tant que acteur fexe ba lépp tegu ci yoon loolu mooy suñu xalaat. Euh, ñu bëri ñu ngi wax fi ñu toll nii Mansour Faye di ministre euh, des transports na tekki ndombal tànkam est yow bokk nga si. ci ñi koy laaj parce que ministre bi tëj buntam. ni du la recevoir ngay wax mu tekki ndombal tànkam mais ba ñu toogee ca salle ba ñoom ñëpp dañoo taxaw ni waaw ñu wax ko point yi nga xam ne transport attanu ko mën na ko ko teggil ñu ko kon ki nga xam ne boo ko fekkee mobile la soo waxee mu tontu la soo ko waxee lu mën a léegi mu jël ci ay matukaay lu tax nga naan mu tekki doogam lu tàggam sant ñun ànduñu ci loolu parce suñu ministre mi ngi déglu suñ ko soxlaat dañ ko jot du ngi wax ñun kon demandé wul pour mu tekki doogam tàggam dañ koy encouragé di ko masawu di ko jaale. problème mu technique bi ñoom dellu nañ ci ginnaaw waa si wàllum porte bagage yeeg Versailles yi dañ ko réglementé. Mhm. bu dee sept places cinquante centimètres bu dee car centimètres. Mhm. ci wàllum pneu occasion yeeg ñoom seen. yooyu aussi dellu nañ ci gannaaw parce nee nañu dafa am aspect social bu mag buy dund ci pneu. Mhm. importateurs yi exportateurs yi vulgarisateurs yi yi ciy liggéey dafa bari dafa am ñu ci yor seen te am na pneu yu bees tàq yoo xam ne pneu occasion yi ñoo ko gën. voilà kon euh, Fallou Samb Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. jërëjëf merci beaucoup voilà may fàttali yow yaay secrétaire administratif bu cadre unitaire des syndicats des transports routiers. waaw effectivement